tey seetuñu rappeur mais dañuy dem si waañu rappeur yi bu ñu nee rappeur yi je sais pas fu ñuy toggee ceeb mais fu ñuy c'est seeni sang muy fan dans un studio le studio s'appelle Thiaroye 44 ils ont mis sur le marché une compilation nommée Hood Up d'ailleurs, Up dajale ay crew underground ou un artiste rappeur underground Il y a plus de quinze artistes pour ñu découvrir ah, maa ngi leen di jaar di leen bëggee man la Moustapha di producteur en même temps di manager wu studio Thiaroye 44 Records nekk fii ci Télé Diallo Thiaroye quartier Mesere. avant ngay ag ten bi. studio Thiaroye 44 patch la ci bir label bi quoi moy def côté enregistrement tout ce qui est son public reportage sport, spot euh, ay voix off yooyu ci en même temps amna benen studio bo xamné en matière d'image imagerie lay liggéey tout ce qui est vidéo tout ce qui est public reportage ay court métrage long métrage ak lay à part lolu amna benen bo xamné côté infographie la infographie 2D affiches, flyers conception dépliant tout réalisé je crois que parce que nous, euh, juste en 2002 nous objectif bien précis Nous bëgg mais na lañ après ci kenn kenn ku nekk nous, ñun ñi communication ñi dem MAO ñi dem infographie bañu paré ñu ñëwaat continuer ci label parce que label bi dafa am ñoo xamné c'est des étudiants ñi ay enseignants lan ñi ay rappeurs lan ñi nga xamné sax duñ sax duñ sax duñ sax lén quoi mom mo créé l'association de euh, du du du label. loolu bañu paré ba jang ba tek ba nga xamné ñun paré nan ci lén tracer suñu yoon bañu commencé nak duplication lañ tambalé won parce que boy xol fi Sénégal sur 20 projets mën na né quinze yëpp ñu ñoo def duplication yi te mën naa la si lemal rek quelques-uns booy albumu Falam bi mu génn ñu ñoo def duplication bi albumu Carlo di ñu ñoo ko def duplication bi président d'Afrique bu DJ Awadi ñu ñoo def duplication bi nga jël albumu Queen Biz premier album bi mu njëkk ñu ñoo def duplication bi xam nga y avait pas mal de projets yo nga xam ne ñu ñoo def duplication mais ñun on était invisible ñun suuf lañuy nekk di liggéey lañuy liggéey ba ñu gisee ne ñu ngi def loolu yëpp ñu ne bon ñun ñu ngi suñu on est am nañ ay artistes albumu xalam bi aussi.

fii artiste mu nga fi duggee de zéro am ak quelque chose de nothing for something si am na ay artistes yoo xam ne ñu ngi ci label bi ah mais man je trouve que loolu euh, comme ñu ngi nekk di liggéey dama koy denc tuuti rek en confidentialité mais am na ay am na ay projets yoo xam ne teg nañ ko yoo xam ne d'ici peu nit ñi dinañ ko gis quoi incha allah. Ah, jof na noonu ñi membre fondateur yi booy xool ay ay ay ay ay rappeurs la naa. Ah. ay rappeurs lañ mais nag comme li ma la waxoon dañ dem jàng ji musique ba ñuy jàng ji musique jànguñu rap musique lañ jàng quoi léegi bañ jàngee musique bon bu artiste rappeur ñëwee nañu dañu bëgg rap ñu enregistré la bu keneen ñëwee dañu bëgg world music pop rock wala wala whatever yeneen genre de musique dañ lay enregistré du moment que qu'on un bon produit fini quoi. waaw question boobu dina ma neex quoi parce que quand on dit l'underground man pour man mooy ñi nga xam ne ñu ngi si suuf te ñun man loolu laay wax ñun on est dans l'underground te underground dafa am ay talent yi nga xam ne instant bii mais malheureusement amuñu moyen amuñu visibilité moo tax suñu premier projet bañ ko tegee dana dañuy teg un projet ki s'appelle Hood Up jéem a jël booy yi nekk dans l'underground sélectionné ci les meilleurs jéem leen a posal tracé leen yoon pour ñu demal seen bopp loolu moom moo tax bon ñun dañoon dañu yàgg ci underground bi xam nañ lu underground bi daj loolu moo tax ñu bëgg leen tàllal loxo dalal leen euh, loxo quoi pour gën leen ànd ak pour a liggéey. Oh, hold up nan ngay jëlee c'est un mot anglais ah mooy ñu wut

te am na ay boo yoo nga xam ne ñee ëpp ñu leen talent mais malheureusement amuñu moyen amuñu une fenêtre de communication pour wane ñoom seen seen seen i œuvre loolu moo tax ñu ne bon Wood Up la génne pour fësal xale yi li nga xam ne mooy jeune talent yi ci liñ ci liñ nekk quoi particularité Wood Up man dama ciy sawar quoi d' abord euh, dama lay wax conception Word Up ñun ba ñuy njëkk a teg conception Word Up dañoo waxoon dañ ni euh, dañuy def. Euh,

sortir le projet d'abord parce que mélomane ñu ngi ko doon laaj objectif projet moi montrer au rap galsen 15 jeunes 15 jeunes nouveaux talents ci biir game bi objectif projet bi pour chaque artiste yi nga xam ne nañ ci ñu fexé ba nga kenn ku nekk am vidéo am son objectif moi moom ñu def ay scène 15 artistes kenn ku nekk c'est ça le but quand fait un un mini-concert. L'objectif est de faire de telle sorte que les 13 régions gens à part Dakar, faire une fenêtre pour scène. Ça veut dire que l'objectif général, on va faire plus de 30 concerts, ou même 40 concerts, on va faire à l'UNIDEF au niveau de Dakar et à l'intérieur du pays. L'objectif principal, c'est de faire l'olive. doga dem Sorano mu nekk fête nationale bo nga xam ne boo yëpp ñoom ñoo si ñëw ak seen public ñun dañoo yàgg ci def duplication duplication génn ay CD nangam mais CD yi day xoos wala nga jël CD doo xam nga am problème lecteur particularité moom pour la première fois au Sénégal en 2019 Wood Up mooy premier projet wu bu la musique sénégalaise mooy premier projet wu bu la rap Galsen en 2019 muy premier projet bi nga xam ne c'est à code da ngay xoos sa code soo xoosee sa code nga dem www point musique bi point com mu wax la mu wax la télécharger avec code nga dugal code bi daal di cliquer affaire yi daal di wàcc sa portable wala sa iPad wala sa iPhone wala sa sa machine. bu fekkee amoo nga nekk Chine wala Japon wala Sénégal wala France wala nga nekk Tambacounda bëgg compilation bi da ngay dem site musique bi soo demee site musique bi nga def musique télécharger avec quoi ak télécharger l'album nga pouvez télécharger l'album télécharger l'album vous acheter l'album par Orange Money via carte bancaire wala PayPal nga Orange Money je trouve Orange Money 2000 francs jar cliquer dem sa numéro téléphone def 2000 portable. avec euh, le téléchargement numérique. foo mën a nekk ci àdduna bi nga dem bind mi wudo be ngay bind mu yóbbu la musique bi wala nga dem www point com musique bi nga dem boo demee foofu mu am na fu ñuy bind album mu génne la compilation wudo nga mën ko jënd foofu ba pare am na naan des sites de distribution classique comme ñun ñi nga xam ne ay rapport lañ kenn ku si nekk bu soxlaa album da ngay dem ji foofu wala Africulture mais ñun dañ cee ça sax avec les institutions, que ce soit français allemand yeneen instituts euh, américain pour foo il faut nga fa faire wuutu ak 15 artistes qui nous ku nekk point de vente nga ñu tamit en même temps les stations régionales de la RTS yi nekk ci région yi faut boo ko demee di fa am aussi le tous nos supports de communication pour les affiche flyers jacket yeeg même dans le net on a toujours nos données non numéro là-bas suñuy numéro mooy 77 437 62 55 77 437 loo bëgg xam ci Thiaroye 44 sur la compilation Woudak ñun ñu ngi leen di déglu ànd ceeg yéen liggéey si lu naayes quoi. sama mbokk yi popor yi maa leen di jaar di leen bëggee di leen wax ni Woudak mi ngi ñëw te 15 15 jeunes yi ñu ngi ñëw. xam nga na leen gars yi support xam nga ñu ànd ñu liggéey parce que man li may wax à chaque fois loolu laay wax quoi mu ne hip le hip hop Galsen jarul ñuy dem sax di lii ñun buñ doon jëndante suñuy projet sunu biir fii kenn ku nekk mi ngi dawal oto wala mu ngi mi ngi joxe këram dépense mais kenn day gën a album gars yi na non waaye kii kii feeg la du ma déglu genre non genre détail yooyu ñoo ñuy kii quoi nañuy consommante ñun suñuy biir instant kenn ku teg mu support bu kenn tegee concert am gars yi dem support saa yi foofu gars yi dem support loolu moo koy dundal moom mooy tax sponsor yi ak partenaires yi ñeme ñu xam man ci loolu rek laay kii quoi pour que gars yi nañu raxas xool yi xam nga ñëw ñu ànd ñëpp di jaxasoo pour le hip hop galsen quoi. pour tous les sénégalais man dama leen wax ne leen. c'est un nouveau produit de Thiaroye Studio Thiaroye 44 Record ay ndaw lan yu am talent jàppale leen parce que ñii defuñu lu dul. véhiculer des messages Ni défendu l'udul représenter le Sénégal parce que ay ambassadeur et ay porteur de voix Ni défendu l'udul lu pour mener a jàppale seen famille ak ak ak seen i waajur ak le Sénégal ay ambassadeur lañ xam nga ñu ngi leen di la main té kenn ku nek buñ ko mëné dina ñëw sa gox dina fa def prestation bu ñëpp gis gis ni ñi dañuy liggéey liggéey rek mom moy fay. son mot de la fin moy wax sénégalais yi ak rappeurs yi le projet Wouldeup est là té dama bëgg sénégalais bu nek kër gu nek projet bi nga am ko sa kër pour jappalé boy sama projet sama ki bu njëkk mom moy Wouldeup yàggatul dinañ def Sorano di ci invité sénégalais yi di ci invité partenaire ak acteur culturel acteur ak mouvement hip hop Galsen yëpp ñu ngi leen di invité Sorano dans très bientôt di ngeen commencé gis affiche yeeg yooyu dina def di leen wax tamit wuuda wuuda bi mooy number one number two bi instant yi tamit dina démarrer dans un peu de temps aussi pareil que gars yi na ngeen jàpp ci projet bi jàppale seen i jeune talent ah, jàppale seen rak whatever quoi pour que le hip hop gagne ah. waaw ya, ya, waaw jaajëf merci beaucoup yéen tamit maa ngi leen di remercier ci seen teewaay franchement ak seen disponibilité di leen jaajëfal di ñaan El Vision Média nekk chaîne bi nga ne bon Sénégal yëpp dinañ ko big respect parce que ñun lii doom man dama naan man tamit yéen ñoo bokk ci li ñu nekk ci wut bi ngeen nekk ci wut bi lañ nekk ñoo pour affaire yi bagage yi quoi. voilà j'espère que vous avez bien suivi monsieur Mustapha. et puis ñun ñu ngi koy si éclaircissement yi ñu jox sur le projet ODER mais aussi ñu ngi wax tous les sénégalais ñu bàyyi xel bu baax ce projet ñu xel bu baax ce projet.

en même temps aussi les musiques gagnent frapper moins tant qu'on est des chars américains des chars ou les français des chars pour nous dire leur copier mais ils ont utilisé leur mentalité pour mon technologie maintenant le monde entier mon étudiant j'ai déjà fait Google j'ai déjà fait aussi ouais euh, studio j'ai can record mais aussi les gars ils font ils nient hamnier ils nient certains les gars ils font aussi sur le caméraman PM, L Master à toute l'équipe de L Vision Media. Il est dit d'ailleurs pour le quatrième numéro de votre émission NNC. One love and respect. Wassalam.